ñu ngi naamaatu liñ fi fekk nii lu yéeme la ñoom itam ñoom ñëpp kër yi fees na gis ngeen ko dugg nañ ci ñoom moom mënuñu fa fanaan tey seeni i a ngi si biti jaaxle nañu waaye liñ leen di xamal rek mooy am nañ école bu ñu leen bëgg a yóbbu mais école Daaru mar naan fa lañ leen di yóbbu ñu ngi wax ak inspecteur ak yooyu pour ñu préparer école bi désinfecté ko pour ñu mën fa dem lii nag li ko indi mooy ouvrage kër ñang ba nga xam ne ndox mi fa la dem moom moo fees donc lu fees ba pare duñ ci yokk dañuy bàyyi foofu wàcc bu foofu wàccee rek gis ngeen machine baa ngi ci ginnaaw machine bi bu tàkkee dina jël ndox yëpp yóbbu ko foofu léegi diggante xàcceeg euh, simmeekook sol nag yaramu neen faw mu dox ci loolu mooy lu ñuy dund nii dañuy xaar tuuti fële wàññeeku ñu commencé pompe ndox mi dem fële waa ci diggante bi faw ñu toxal leen ndaxte ñii ma gis tey ñii mënuñoo fanaan ci kër yi ndaxte ndox mi gis ngeen fu mu yem dugg na sax passé na suñu bot yi ba dugg suñu tànk yi donc amuñ fuñ tëdd amuñ ñu toggee amuñ fuñ defee dara foofu ñu jëlee leen fi tey tey tey tey tey loolu maire a ngi fi sous préfet dina contacté na déjà inspecteur ñu ngi seet ay matuwaay pour léem leen toxal accompagner leen aussi si toxal bi ba ñu mën faa dem ndax ndox mi mën a wàññi lii daal bokk na ci li nga xam ne bokk ci visite bi tey dañuy daal di dem xëj na boori xool boori yeneen point yi ci des